alo allo suma mbokki Gambien si suma am di jàmmay ni ma déglu ci réew mi ak ma déglu bitim réew man la Samsudeen Sarr ma dellu suwa tey di talaata ti ñaar fukki fan ak ñaar ci weeri juun 2021 tey nag suma wax gi fi ma ko jubloo mooy bentey rek suñ dëkk bi nga xam ne um, looya saasa yeeg political njoogaan yi ñoo wax activiste xosula si nekk ci dëkk bi ñu ne dañ nangu suñu réew mi teral sarta yoo xam ne ñoom dañ koo jubluwuñ ci dara luy luwa jubluwuñ ci dara luy dëgga gannaaw ne rek dañoo naxaate di jaay dëgër fit ci kaw nit ñi te nit ñi xam nañ leen nanda nañ leen te duñ dem fenn ma commencé leen dama leen bëgg a wax benn story bu interesting September 2020 20 uh, on the 21st September 2021 dafa am benn waaye ju ñoo wax um, uh, ki naka la tuddaati Georgia la nekkoon ñu naan ko Troy Anthony Davis. amerika ca Amérique Troy Anthony Davis ñetta fukki at ñu ngi ko tëj wax ne moom moo rey benn police officer you know dañ ko war a rey since 1991 ñu ngi ko tëj ñu ne dafa rey benn officer dañ ko war a rey mu ne moom reyu ko njoogaani looya yi mel ni ñoom Essa Fall dem wër ay saasaay ne leen gis ngeen ko fiñ koo reyee gis ngeen ko fi ngeen fay leen sax ñu ne ñu dañ leen fay ñeneen ñu ñu nax leen mu nekk mu njoogaan yi nga xam ne digër fit rek leen fen loo ñu fen ko mel ni ñoom ooyaan yi ñu ñoo waaw dëgg ñoom gis nañ fi ñoo reyee muy juróom ñeneenti seer nañ ne gis nañ bi Troy Anthony Davis di rey police officer bi investigation bi yàgg nag ñuy ko ut di seet waaw lii naka la amee lii bém des ay weer pour ñu rey ko juróom ñaar ci juróom ñeneent yooyu ñëw ne ñoom dañ leen doon fenloo seen diggante yi yàlla xam nga ñett fukki at dafa yàgga mat nañ xam nañ ne lii suñ dee fees yàlla suñ borom bi leen binda dinañ xam ne fen yooyu dañ leen ci dugal te ñi leen ci dugal doomi aadama leen te ñoom ñëpp dañoo dee ñoom ñëpp ñu génn si ñoom juróom ñeneen ti juróom ñaar ci juróom ñeneen ñooñu ñu ne ñoom dañ leen ko fenloo waaye liñ doon wax dañoo fen waaye ñaari seetna yooyu ak jooj yi ak dëkk bi yëpp nag jooj yi yëpp fii ne rek nit ku ñuul la dafa rey tubaab dañ ko war a rey bés biñ koo rey you know um, gannaaw gi àdduna sépp doon wax affaire am mooy Troy ndeysaan yal na ko yàlla yërëm bés bañ ko tëralee pour rey ko ñoom dañoo reyee péngu péngu la ñoo reyee lethal injection ba ñoo dugal péngu bi fekk am na ku toog ca suba sax ñu naan ko wendy gozan brown mom amnesty international a liggéey mu oo ko ba mu ñëw mu ne ko ñu ngi maa rey waaye man reyuma kenn waaye li ma leen wax rek mooy ne na ngeen yëgal àdduna si ne lii xeex boo xam ne la dañ ko war continue not only pour man waaye pour Yenen Troy Davis yi war a ñëw ci àdduna si parce que dinañ ma rey ci neen loo xam ne lu dëgga du yoon ndeysaan li ma leen a wax rek ci looye yi li suma pa wax mu ne looya du dem àjjana mu parce que suñ taxawalee fen jaral na leen lu nekk waaye seen fen yi foog mu taxaw parce que ñoom dañ dee fiil ne suñ suñ luusee seen kees yi dafa yàqa seen daf dee yàqa seen carrière dafa yàqa seen liggéey dañoo wane kii mënut liggéeyam even suñ jëlee fen def ko dëgg jël dëgg def ko fen waaye Troy Davis ndeysaan ñu ko rey septembre 21 2021 mu ni leen xeex bi continuer leen ko yéen maa rey waaye reyu ma kenn ñu rey ko biñ ko reyee ci la ñëpp d'accord nag ne Troy Davis defu ko ci lañ xam ne defu ko ne reyut waa soo ñu rey ko innocent waaye looya ya ko taxaw woon def ko ñu ngi ne ñëpp ci lii dañ ne toog na yeneen ba màgget doo di di rëccu di tuub di dem ci cooc yi di fa fanaan suba ba ngoon foog ne yàlla dina leen baalal fekk yàlla nga leen a xaar ca naka safara sa gën a bon ci àdduna fa lañ leen a dugal jaay like Kcee SR kii rek dama laa war rek Kcee Kcee Yankuba Touré bi dafa mel ni Kcee Yankuba Touré bi ñett ser nañ ñu bëri dañ ne Kandji dafa fen Yankuba Touré amul dara ci reyu kurus yi man xam naa ci dara Ibou Diallo xam na ci dara ñeneen ak ñeneen kam waaye ku mel ni Batambe du pare na ci dugg safara ku mel ni Essa Fall bugg na ci dugg safara Lamine Cissé TRRC ñoom ñëpp pare nañ ci dugal safara pour ne rek dinañ taxawal fenn dinañ tëj Yankuba Touré ba pare indi jooji njogaan bi ñoo wax cayte indi ay foreign mercenaires si nga xam ne ñooñu xamuñ sax luy yàlla ak yonent ba ne leen kaay leen ne leen prosecutor kaay leen ko prosecute nañ ko tëj rek dafa mel ni Troy nañ ko rey rek façon ngi nit ñooñu ñoo bugg a taxawal ni dañoo yóbbu dëkk bi kanam soo gisee yàlla dee wax ñu ne yàlla dee def balaa ci dëkk bi façon ngi nit ñu bon ñi la toogoon ba Liberia lakka ba jeex tak sere yong lakka ba jeex tak gouvernement yi gën a bon ñoo fa ñoo fa ñoo soo loolu lañ war a xam Essa Faal toog na Mimbe Kérit mu ne moom ci investigation bi ñoo doxal affaire yi TRRC bi affaire Yaya Jammeh ak yiñ ko accuse yëpp bëgg nañu yóbbu Yaya Jammeh ICC ñu tëj ko mu ne waaye moom am na sekere yoo xam ne xam na ko ci yoo xam ne suñ ko yóbbu woon ICC mun na yàq kiis bi ngeen xelaat wax googu kooku foog ngeen ni kooku nit yàlla la. ne xam naa ne fen yi ñoo tëral nii xam naa ne fen la because am naa ci yoo xam ne su ma ko taxawalee wax ko dinañ xam ne fen la waaye duma ko wax parce que kii dama bëgg ñu buggal ko wéraloo ko ci fen waaw parce que looya nga da nga bëgg sa tur jóg ca kaw ne yooyu yaa tëj lu koo xam ne daf la am ñoo xam ne dañ la wan ne dañ ko bañ te yow li nga xamul mooy ne faay fi la wax ne kii da nga ko bëgg dañ ko bëgg ñu lor ko dañ ko bank dañ ko bañ xëy na over fifteen ñu nga wax ne dañ ko bëgg waaye nga enu sa fa bi di fugga sa dina bi kii dina ko tëj dinaa ko lii ko lii façon yi nit ñu bon ñi mooy nekk ci looyes si façon ñii lañ fu nekkaa leen naa fekka nag ci àdduna maa ngi doon xoolaat sa waa ji ndeysaan ki ñoo wax ni Pavis Payne moom Tennessee la nekk Tennessee in America ñu ngi ko war a rey décembre juróom juróomi fan ci di non ñetti fan ci décembre 2021 parce que ñu ne dafa daanu woon ci jigéeni tubaab moom itam ca ñetti fukki at ñu ne dafa daanu woon ci jigéeni tubaab euh, réeb ko ba pare rey ko ñu yóbbu ko koot mu ne amut any evidence looyee si dem uti ay witness ne witness ngeen ko waa mu gis ngeen ko moom moom muy fight case bi daan musta laal jigéen yi musta gis jigéen yi looye si di ko fight ba léegi yàlla dimbale ñu ne ne DNA DNA li ñoo wax DNA mooy ah, sa deret la dafa nekk loo xam ne deret lu sax ci deret la loo xam ne mu ngi ci nit in fact mun ngaa dee ay ati ati ati ati ñu ñëw seet sa diine xam yooyu yaay woon kan ndax góor nga ndax jigéen nga ndax la la rey sax dinañ ko xam deret googu fooli fi diine loolu bu yàggul lañ ko feeñal di ko yóbbu koot di seet parce que nit ñi dañ daan wax ne kii dafa daanu ci suma ko euh, dafa daanu ci kaw jigéen ji daanu ci ko am réeb ko gars yi génnee ay semenam mooy ndoxam euh, deretam denc ko wane ne yes soo léegi DNA dañ koo génnee di ko seet ndax waaw kii deret gi ñoo wax ne moom la dugal ci ndaw si ak deretam benn la léegi am nañ machine yoo xam ne dañoo seet yooyu mooy DNA test yi ngaa soo ñu la teste mun nañoo xam ndax yow kii yaa daanu ci ko am oo noon léegi ñëw nañ ba prosecution bi ñaka défense ñi défense Pavis Payne wane nañ ne Pavis Paine am nañ évidence DNA léegi fi mu nekk dañ ko war a yóbbu pour test ko looya bi nga xam ne mooy wax ne wane waa ji Pavis dañ ko war a rey mu ne waruñ koo yóbbu parce que lu waa nanguwut pour ñu tes ko léegi la amoon am na coow lu rëy fi mu nekk looya boobu maa si Essa Faal ge baataam ñu ngi bañ na sax test boobu warata am parce que suñ ko testé mun naa am ne xam nañ ne suñ ko testé dinañ xam ne kii daanuwutoon ci jigéen ji te reyul jigéen ji waaye bugguñ ñu tes ko parce que dañ bëgg ñu rey ko pour seen tur taxaw ne ñoom ñoo reyloo kii noonu la looya yi mel waa si Essa Faal gi ñoom ba tamit noonu lañ mel gis dëgg gu set bëj nekkaa leen ñu benn ko yëpp nekkaa leen ñu fenloo ko soo loolu façon yii ñoom lañ am ci réew mi because man keroog ba Essa Faal waxee ne bañ ko ne ko Mamba Kéré ne ko waaw yow di naa ne yow da nga dee defend ku ñëw rek suñ la joxee xaalis mu ne waaw soo gisee may defend Charles Taylor waaw lii lale ba pare sax loolu man bëgguma ma dem ne dama difen Jammeh parce que man maa doon def investigation bi te bi ma gaada evidence yi gis naa ay secret yoo xam ne <laughs> su ko génnee kenn du mun a def dara Jammeh waaw ba dafa suñu nit la ñoo wax nii ba pare ñii taxaw nag ne ñoom foofu la ñoo jëlee bind report report boo xam ne Essa Faal moo leen naa wax naka lañ koo bindee xam nañ ne docteur Cissé xamut li moo def docteur Cissé du jooj pour xam ne Essa Faal lim doon def yi fi njogaan la kenn nekkul ci commission bi koo xam ne xam nañ li Essa Faal doon def ci commission bi fi njogaan la moom moo leen war a ñëw ne bindal leen lii bindal leen lale bindal leen lale waaw ka gën a dof nag muy naka la tutaara Baba Galle Diallo Baba Galle Diallo man xaw ma si ñi seen PhD fan lañ ko jëlee maa ngi gis mu ngi bind benn article article bu ña a fayda ñu ngi koy yow ay Baba Galle yàlla waxtaana wax di same Baba Galle Diallo bu ma daan riit ci 90 si di same ni dee bindee noonu laa bindee ba tey moom commencé na ci bindaam bi <laughs> you ku ñoradi la rek ñoradul commencé ci bind di tagga Gambian si waaw révolution bi ñu def 2016 génnee fi dictatorship change nañ gouvernement bi waaw ba léegi ñëpp ñëw nañ change nañ démocratie baa ngi ne xuy ci dëkk bi in fact nit ñaa ngi register pour defaat beneen élection ñëpp a ngi kontaan kenn tiitut dëkk baa ngi naat nit ñaa ngi tëb di dal waaw léegi ñoom sax ku nekkaa ngi register pour élection bi ñëw tudd wane lu rafet about dëkk bi ni mu neexee bañ génnee Yaya Jammeh ngeen seet the second part of the story soo ko riidee mu ngee wan ni dëkk bi naxaree ba gouvernement bi ñëwee benn tey corruption bi la baroo ne three years la fee def defu ko fi ñàkka gi crime rate bi wax wax wax bind yoo xam ne literally di wax ne dëkk bi dara doxu fi because of government bu bon bi fi nekk loolu la bind xam nga dof yi nga xam ne li ma naan ay PhD nonsense si moo tax duñu am fen liggéey ci àdduna si half of the story half of lim binda you know yëpp mu ngi tagga li gouvernement bu baax bi ñëwee afta jàbbe li ci des xaaf bi ci des mu ngi xas gouvernement bu bon bi nekk ci dëkk bi bañ jëlee lifin soo ñi yan façon ngi lañu la ñoo lifin ah Babacar le dafa mun a binda waaw jël na ay jargons verbose dugal language boo xam ne soo ko déggee nga ni yee kii dafa dégg tubaab fekkal li moo xam li moo bind sax xamu ko nii lañ stupité ñooñu ñooy ñëw nag di wane ne binda leen lii ci seen commission bi dégg naa ne sax ñu ngi xaaya ay expert pour ñu dimbale leen pour ñu bind seen commission bi seen commission bi moom laa day wax ne ñii ay docteur balaa ma suma xol bi ñu naan docteur kii docteur kale PhD li non man docteur yi ma taseel ñu nekk nonsense waaye ñun xam nañ li xew léegi doctorate degree yi nonsense yi nga dégg nii yëpp ci international community bi léegi dafa am professeurs yoo xam ne rek leen naa fay xaalis ñu bindal la thesis wala na ko koo défendre ñu jox la ñu jax la ñu jox la euh, grade bi oo degree bi ne waaw kii docteur la docteur doo ko taxan ci àdduna si doo ko taxan ci àll bi da ko liggéey. ñii docteur yoo xam ne dañ ko taxaan ci àll bi la ñun xam nañ loolu moo tax duñ am liggéey bitim réew because yoo xam nga ni kii su waree binda pour euh, naka euh, pour ñu jox ko teen parce que am na Amérique li ñoo wax teen yo soo jàngul ni nga sa njànga su ñorot nga nga nekk ne da nga docteur nga soo mënut a def sa teño doo am liggéey fenn Amérique every year ne ñaari at ñetti at di nga bind loo xam ne dafa original loo xam ne nit ñu ñor ñi dañoo toog riit ko xam ne kii ku ñor la ñu bàyyi la ngay tëj ci seen université si because doctors yi ñoo dee tëj ci université si yow façon article bii nga ne docteur nga nga bind ko yow dañ laa dàqa sax yow doo amati liggéey mënuma imagine ne ñii ay docteurs lañ Babacar la Jallow soo ñii ñooy ñëw nag ne ñoo ñoo wax dëkk bi naka lañ ko defee ñu ne mu ne dafa bëgg a nekk président la ilaha illallah Gambia deex you know nga am docteur bu stupide nii nga boole ko looyee bu naafeqaa nii looyes yu bon yu soxori gëmuñ yàlla gëmuñ yónnante bi you know seen tur rek la ut ak lu ñu am seen talasi yi nga ne da leen a jox réew mi ne nañ leen ko yóbbu ci kanam bugga koo jaxase suñu réew mi gis nga maa ngi dégg keroog mu ngi wax ne waaw xam nga biñ ko waxee affaire yi TRRC waaw ah, dem nañ TRRC bi ñoo commencé Patambedu jàmbaar la dem na bi South Africa waaye xam nga ok justice component yes parce que xam nga soo ko seetloo itam although bi TRC bi South Africa bi mu paree bi mu paree bind nañ recommendation pour ñu prosecute ñi nga xam ne dañ bañ a ñëw loolu to some extent am na justice component because TRC. Truth Reconciliation Commission amul fenn ci àdduna si foog koo ne da nga war prosecute nit ñi sax like that da ngaa recommandé waaye pour ne yow am nga evidence pour yóbbu ne lii is sufficient pour nga prosecute nit ñi non amul South Africa ba ñoo seen seen seen seen lifin ba naka la turaati seen seen TRC bi dañ ne dañoo investigate dañ doon investigate apartheid apartheid nga xam ne moo gën a bon ñooñu dañ liñ rey ci nit xamuñ ko from 1960 ba nineteen ninety four ñoom loolu lañ doon defeen nineteen sixty ba nineteen ninety four loolu that's about thirty four years boo xam ne dañ doon seet dana victime seeg yooyu ñu ne twenty one thousand victimes appear nañ ci ci seen TRC bi you know uh, victims ñoo soo nañ am nañ twenty one thousand victimes two thousand appear nañ publicly pour wax you know paree ñu ne seven thousand wa wan seven thousand you know ñoo xam ne dañ fiir ne waaw ñoom committoon nañ crime dañ apply ne nañ leen balal ñu ne about eight thousand lañ baalal five thousand ñu ne baalaluñ leen ñeneen ñi dañ withdraw waaye senior officers si nekkoon ci government bi yëpp dañ bañ ne duñ génn duñ duñ ñëw pour waa including seen président ba muy Buuta biñ génnee ñu ne waa dañ ko war because ñu ne witch hunt la South Africa ak appetite ni mu génnoon a bone nga xam ne dañ xaajaale woon tubaab yeeg nit ñu ñuul ñu ne tubaab yee baax nit ñu ñuul yi baax dañ bon you know dafa rey nit ku ñuul te dara du ci génn ay ati at ay thousands of thousands la ñoo wax ñoo ci dee ñooñu seen seen seen seen bañ paree sax dañ ko juba because amul fen ci àdduna si fu ñoo amee si boo xam ne da ngaa ne damaa jàpp kii tëjlu ko crime against humanity crime against humanity biñ commit South Africa fraction am commit tuñ ko fenn ci wool bi waaye truth reconciliation pour ñun ñu ñëw ku nekk wax ci sa coobare lii laa def ngeen baalal ma ku nekk wax ngeen baalalante including ne Yaya Jammeh dañ ko waroon naa jox daan opportunité bu ñëw wax Essa Fall ne du fi am balaa moo sangoo suuf balaa moo dee tàlli o su dee balaa moo tàlli foog mu tëj Yaya Jammeh te su muy tuut su may dina dina toog xam naa ne du am sa. du am toog nag léegi ñu ngi koo taasul yaa fi sës kaay nekk président <laughs> yeah I mean like no I hate to laugh when I come to this thing du ma dee bugg a parce que kii fi mu ñu ñii fi ñoo jublu dafa bon saawaay ñii dañ bugg a toj suñu réew mi ay niti yi saasaay yi nit ñu bon ñi ne dinañ ñëw taxaw def li leen baax you know maa ngi dégg dis mi mbékkeerin kaay mu ngee ñëw di wax saabali naan ko yow Essa Faal moo la yow Essa Faal lan wan iye rek la liggéeyal Yaya Jammeh jógee fi dem jàngi dem jógee foofu dégg même ba yow xamuloo li xew yow daf la bugg a wax da nga bugg a da nga bugg lim la wax ba laajtewuloo defuloo research waaye Essa Faal xamuloo ne scholarship ba mu am ne mu nga dem càngi Yaya Jammeh government bi ñoo ko ko jox Commonwealth sa scholarship si ñëwoon ci dëkk bi yëpp ci government bi lañ koo jaarale government bi moo koo ab Yaya Jammeh daf ko seppi gënu fa jànga ñëpp ñu jox ko mu dem jàngi ba mu jógee dafa dellusiwaat fii Yaya Jammeh di liggéeyal yaaya Jammeh ci justice ministre bi gannaaw gi la ko Yaya Jammeh jël yóbbu ko United Nations nekk first secretary at the mission di def lu ko Yaya Jammeh def loo mu def décret yi ñoo bind ban décret la et saabale bi na you know yow Bimba Kering because yéen da ngeen bugg a xam ne in fact sax bu waxuma sax da ngeen bugg a da ngeen yàgg koo xam ne jaruta ekkati fenn. ku useless la buggulee naa gis useless na sam because yéen a am yëpp seen mentalité si waaw soo jooj you know nit ku dof suy jooj nit ku dof dafa foog ne kii you know waaw kii because yéen ñëpp mentalité it's nonsense Essa Faye lim la doon wax yëpp daf la doon deceive waaye yow gëm nga ko beneen da nga wax es kii na ko saabali naan ko yow yaay compare sa boppa kii naka la tuddaati am eh, eh, eh, Esafal, Fall oye Esafal, Fall yere eh, ngeen tooñ waa bi saabali moo daan liggéeyal lii ya saabali moo daan saabali secrétaire général la woon te daf doon wax lii xew understand nga li ngeen bañ a dégg yow yaa ngee wax ne victime si ëppoon yëpp UDP la waaye UDP yéen UDP gars yi ñu ngee ñëw di wax ne ñoom ñoo doon fexe nonsense yëpp against Yaya Jammeh ay coup d'état yeeg ay insurgency yeeg ay démonstration seeg di indi naan rëppi seeg yooyu yëpp seen UDP gars ñoom Ba Sankare ñoom kii naka la tuddaati Serigne Thiapa Thiolé Ba I don't know naka la tudda sax you know ñoom ñëpp a ngi ñëw di confess di wax yu nonsense yu bon yi ngeen daan def tu daana réew mi that is why you had a problem with the government of Yaya Jammeh soo soo ne yéen a gën a nekk victime yéen a gën a nekk itam perpetrators because li ñu wax xaw ma ka doon ma ne mu xamuñ xamuñ ki ki lañ xam that was a very nice word xaw na alpha falfa bala ko no alpha photo you know mo wax that statement it was very interesting Mune gambe Gambia xamuñ ki tooñ ki fayu lañ gis ne ki moom lañ and that's wrong yéen ñaawteef yi ngeen doon def ci de ñëpp xam nañ ne ñu yee wax ne ñu leen wax ne dañ doon réeb ñi leen def yooyu yëpp dañoo fen def seen you know kaaleen ñu dem ne kii naka solo sandeng dafa ñëwoon pour peace demonstration ñoom ñëpp wax nañ ne du dëgg solo sandeng Baye Sankare wax na ko kii wax na ko naka la tuddaate Faalang wax na ko dafa dem gars yi nekk diaspora ba ñun ñu ngi woon Amérique dégg nañ ko dajale xaalis bu ko Dakar jox ko xaalis bi ne ko mu ngi nii luñ ci bugg rek mooy taalal réew mi rek loo ko mun a taale baax na mu jox leen ma piyee jox leen mu ñëw ne dafa taal réew mi waaw victime la waaye because moom moo ko indil boppam waaye sëriñ bi let's be realistic you know waaye ngeen ne loolu yëpp da ngeen koo sànni ci àll bi ne eh, eh, boo fi nekka lii waaw dalee lale you know because mom is fa lim fail to understand it majority of Nico support yep DeKabi. Legi ñëw name to the level ñi the same way Hana UDP Today, but interestingly you know dama gis benn waay You know, them ci mbedd bi programme la dama run into it No, they ma forward sax you know kuy dem ci mbedd mi de laajte nag luñ xam ci Essa Faal nekkam candidate pour nekk président am na wan autour rek waaye majorité bi yëpp suñu waxee rek dañoo ne dafa teel nañoo bokk UDP mbaa mu bàyyi léegi léegi dëkk bi ñu ne ñoom liñ taxawal mooy nañ daaneel Adama Baro suñ ko daanelee soo mun naa xaar ba nekk si élection waaye élection bi bu mu wax pour nekk président Essa Faal xamul ne soo gisee gars yi tàccul ko li ci ëpp yëpp mooy gars yi opposition bi la te ñooñu yëpp. soo gisee ñuy qualifié dañ foog a dafa jàppale seen agenda bi pour ñu nekk président and not mais moom dafaa nekk président oh yes so daf ñu war a dafa war a xam ne jàppul ci dara ak mbalax yeeg taasukat yeeg li nga dajale yëpp dinañ ko lekk ci sa loxo soo déggee politicien <laughs> demal nga demal movie kii bi naka Richard Pryor bi ñëw Brewster's Million nga seet politique ni mun a lekkee xaalis yow sa xaalis bi nga defa repa because jàppaloo ci dara dara dara dara dara gannaaw ay xos la si di la wóor di la tagga ak nonsense people yi ñu foog ne yow yaa ngi jàppa ci dara waaye jàppaloo ci dara because yow da nga da nga expose sa boppa da nga expose sa weaknesses da nga expose sa incompetence da nga expose sa short sightedness and above all sa unethical standard bi nekk ci yow ne as a lawyer yaa ngi gis dëgg gu ñor xom nga ne di nga ci dëggaat parce que tur nga ut toog amul lool loolu sax soo ko xamee ci sa xol sax waruloo ko wax soo xamee ci sa xol ne yow yaa investigate yaa jaame yi nga évidence bi nga dajale yépp xam nga ne am na ci loo xam ne xam nga ko ci soo ko yóbboo du sax fen loolu waruloo ko wax foofu xam nga ko ñoradi rek a ko waxaa waaye nekkul la sax because yow óor na na le yow daf la war a óor ne samba booy yi ñoom pa xaw ma boojang naka pa boojang la I don't know membe këri ñoo ñooy góom li nga ñoo ñu jànguñ pa pa boojang dégg naa jàngul kooku moom xaw ma ñu you know like you know, how ma Sénégal them demee France school la dem nekkoon fi DJ ci benn baal pousser jógee fi dem Angleterre ñëw fi ne journaliste la fam la jange journaliste ban document la soog a soo ne journaliste xam nga fii ni ñuy top rek ne journaliste la dem some sagari paper talk di bind naan journaliste la journalism da nga study nga indil ñu di credential of a journalist from an accredited university or college ma koolee na nag journaliste waaye nekk fii di bindantu ah, na lay tabas ñabas di wax non sense am gaada sa little popularity ñu naan la yow journalist nga journalist la journalist nga ku nekk samba boy bu nekk di tëb journalism da nga koo study ñoom suwaay bu konaatee if you tell me ñooñu they went to real journalism school why not nonsense people it's just like ku nekk a ngi samba let's be realistic you know kooku emotions ñooñu emotions la ñoo demee seen sentiments lañ sen xol yi ñom la ñoo nek sen journaliste yi xol la du xel la muy petit tot bi you know ñoo di wax naan da nga bala nga tok ne da nga xass sabali against because yow ñoo na ci sa programme bi ngeen laka fa soose ye waaw esa fa le le le le man sax interestingly enough dégguma ko sax mu laaj ko affaire presidential candidature because xam nga boy bi doon def sax demba sauvé bi ci you know daf ko doon daf doon laaj gaayam yi waaw lii suñu waxee ñu ne waaw Essa baax na waaye lii léeg dafa war a xaar waaye lii léeg man di simple thing would have been easy façon yu soobee yooyu da ngaa ne leen waaw ok élection baa ngi jox si jarul jarul nga leen la laaj loo xam ci Essa lii la da ne ko well ñu ngi am si ay candidate Essa Fala ngee taxaw Barrow ngee taxaw Darboe ngee taxaw Mama Kandeh ngee taxaw kan ngaa sànnil that's simple nga seet. xool na ma ne ninety nine point nine percent ñi laaj ñooñu yëpp dinañ la ne Ida duñ duñ duñ duñ sànnil du dinañ la wax ne duñ sànnil na waaye nag foog ci ESA waaw di nga dégg ñu ne ah nit ku baax nag waaw yii de léeg-léeg most of dem nag man ni ka lañ doon laaka sax man ñi ma dégg yëpp kenn rek mooy alpha pol alpha alpha alpha photo moom rek fa laaka olof you know waaye ñëpp ay di ka lañ doon laaj waaye li ma wax sax mooy ne ñoom ñëpp statement la. o oh, esaf eh, a ah, dob ju baax o oh, kooku lim génnee ci TRRC bi o oh, TRRC bi TRRC bi waaye nag dafa war a ñëw UDP jàppale ñu génnee ah, Adama Barrow ñun suñ m yëpp mooy génnee Adama Barrow next election xëy na su paa bi ñu jox ko mu try and they will never give it to Essa Faal he doesn't know that moom xamul loolu loolu la ñu doon wax waaye loolu yëpp coow lu yooyu yëpp dafa bëri façon yooyu xam nga suñ journaliste yi xamuñ lañ leen laajte soo ok easy ah esa Faal a ngi taxaw dafa bëgg a pandi dede. dee boole ci Baba Gale Diallo sax daal foolish so called pseudo intellectuals waaw boole ko ci sànni waaw ñu Baba Gale Diallo itam bokk na ci de waaye ñu ne kii waaw ñett ñii nag suñu leen tayalee seen baloon Essa Faal ngi nii euh, Daabo ngi nii Mama Kande ngi nii euh, Baro ngi nii. ak ñi nga xam ne rek prominent one si aha doya ngi nii Halifa sala o Sidiya Jatta whoever it is nga leen ñu ngi nii kan ngaa dugal sa vote nga déglu noonu ngaa testé ndax nit ki populaire na oo populaire wul waaye lii nit ñi dinañ ko tàccul waaye esa Faal esa Faal because xeta gi xeta xi xeta xi TRRC bi ben tey mu ko toppa because you know ben tey ñu ngi gëm ne lim leen wax ne leen dina ñëw fàtta yaaya jaame ak njobootam ak joolaa yi ak no yooyu yëpp yéen mu ngi leen ko góomloo benn tey génneewu leen ko ci seen boppay ne kii daf leen doon nax because Essa Faal mënul dara Essa Faal Charles Taylor bi mu doon represent sax di ko fi jéem a defend sax ñu leen juróom fukki at lañ ko tëj you know naan ah, kii deful dara waaw tubaab yi ko doon jaay néewal doole lii na leen na leen waaw waaw non sense la moom xam na loolu you know ah, yes it's not true so loolu ngeen naa defee seen sauvé soo leen naa def seen sauvé waaye nekk fii naan ko waaw loo wax ci lii ñoom itam soo leen déglu sax nga am ne xamuñ si xam nga li ma la wax rek ku nekk a ngi coow ne journaliste la yaa ngi sa whatsapp li fi yaa ngi sa hand tape yooyu di laajte from yo nga fair and balance déedéet amut you know oh nga ñëw ne leen ah man Darboe laa support de oh kii laa support de yow koo support Essa eh, Faal a ngi fa kii fa ka seet lan lañ laa wax waaw su jëlee loolu itam loolu itam is a different another way soo ñëwee ne leen man maa nga ne ah, man day gis nga ma nii ah bi Yaya Jammeh jógee fii benn man Yaya Jammeh laa de waaw waaye ñu ngi léegi Daaboo ngee ñëw eh, Kile ngee ñëw Mama Kande ngee ñëw Baro ngee ñëw Essa Faala ngee ñëw Baba Galle ngee ñëw kon ngaa sànnil nga déglu leen nga seet soo moytu sax dinañ na wane Yaya Jammeh dañoo sànnil ta seet ni ngeen nee na laajtee questions yu ñor noonu ngeen koo laajtee waaye toog fii di was stupid question yi ba pare na da ngeen a conclude loolu du wax waaw ba pare na ngeen ñëw nag démba moom <laughs> démba suma xol bi dafa tànga tànga tànga dama xëy ci suba waa man xam naa ne APRC ñu ngi woog ak Baro ne dañoo def coalition yëg naa ko from reliable sources ñu ngi def pour def coalition pour 2021 election bi you know ñu ngi reach out tigana APR naka NPP sax you know baro government bi ñu ngi seet naka la ñoo defaree you know kër kanin laay yaaya jaame pour at least mu dellu siwaat ñu am like ex president and so on affaire bi mel ni la sign si ma doon wane ree mooy ne you know things are getting well between APRC and NPP ñu bëri nag daf leen naxari especially opposition bi ak ñoom suñ TRRC bi rek nonsense people yooyu démb ma xëy ci suba gis ci standard bi ñu ne waaw léegi sax euh, age 22 dañ koo change June 28 pour toolee ko memorial age memorial age about what ñu ne waa victime si Yaya Jammeh la ñoo memorial age lañ ko bëgg a tuddee waaw gars yi ñëwoon attaque si sax you know um, thirtieth décembre seen nataal yi dañ faa nekk waa ñu dee novembre ña Sana Sabally rey novembre eleven ñooñu yëpp dañ faa def seen le ma ne leen seriously how can Barrow allow this waaye may investigate sax ma dégg ne sax ñu ne Barrow yëgu ko ba pare dégg naa ne itam ne sax you know that announcement ak yëpp is bullshit du am because ñu ne AG Chambers block nañ ko dégg naa ko from reliable block nañ décision boobu ne du fi am Why man I would have been happy government ñu def statement When any is not true ñu xam because démba ñu bëree ma doon kool ne ma lii lañ la doon wax ci saar ci baro baro you know he is not in for APRC he is not in for Yaya Jammeh he is against Yaya Jammeh indil ma liste yu bëri nak ne you know like uh, yu bury ñu ngi ko def ci dëkk bi change names fële McCarthy Square I don't care 22nd July Square lañ ko tuddee woon waa loolu moom révolution bi la woon waaye ceeñaan nañ ko waaye man ma foog ne sax waruñ ko woon a tuddee te McCarthy Square McCarthy Square colonial tour la colonialiste ñu ñoo yàq Africa suñ alal gi nekk àdduna si yëpp yàqa yàqa nga ngaa digg Africa yëpp colonialiste ñoo ko yàqa génne ko sax tuddee woon ko keneen koo xam ne Gambian la o African liida la o black leader su leen ko koolee woon sax Martin Luther King Square sax o oh, somebody koo xam ne am na juróom néemam jóg na o ngeen use ko for political expedience yi tuddee ko a modern black activist koo xam ne mun nañoo dimbale dëkk bi mu dem kanam sax su leen ko mënut a jox Gambian is better waaye ngeen ko delee makat Square ñoo ñoo kulu ñu gënoon naa bon yooyu Afrique amul loolu yëpp pour naxaril Yaya Jammeh la rek ak di APRC government mi génne nañ ko 22 July Square Today in Gambia, Gambian today called Banjul Square Banjul Square would have been perfect because Banjul Makatis when called Banjul Square full full of boys who very jange one Banjul Hallelujah xale li moom Banjul Square Makatis Square lu nekk fa activity activité boo xalaat soo ñu sports and everything Makati Makati Square la woon ñu ko Banjul Square sax moo tane waaye ngeen Makati Square pour yàqal rek turi Yaya euh, Jammeh rek te tuddee woon nañ ko 22nd July Square léegi ay 22 bi ma ne waaw Barrow su yow yaa ngi négocier te gars yi because yooyu yëpp gars indi nañ ko ah ñu ne ma you know def na lii lopitaan yi nekkaawuma ah, buyaam lopitaan ba nekkoon fan yi yëpp gars yi ceeñ nañ ko you know yëpp pour wan Barrow ne ko pour wan Yaya Jammeh rek ne ko yow saxal loo fi dara ci dëkk bi. national assembly bi sax nga xam ne ñëpp xam nañ ne gannaaw yàlla yaay jamee pus pour ñu bil ko loo xam ne benn la ci koo xam ne dañ koo coow ci dëkk bi dégg nga nataalam sax bugguñ ko faa acc loolu yëpp state capture bi la rek ñoom Batambedu bi la ñoom Essa Faal ak ñoom Docteur Cissé ak nonsense activités yi nga activistes yi nga dégg ñoom maa di jobaate ñu ñooy pousse nonsense idée yi nataalam sax bugguñ ko faa léegi jawara lañ fa af nataalam aj fa ak nataali Adama Barrow bugguñ ko faa aj loolu what kind of country are you living soo bi ma déggee affaire aj 22 bi mu naxaari ma lool muyu ma kool ba Angleterre ñi Germany Europe naan ma ah gis nga liñ laa wax ci Adama Barrow Adama Barrow day nekk la fi yéen a ngi wax juboo juboo juboo waaye kii du ma investigate duga ay topp si loolu ma hey Adama Barrow yëgul mu ne waa yëgul lii kon ñii ban audacity lañ am di ñëw di announce li ne ñu ngi def cérémonie bi on 28 because am na APRC members yoo xam ne sax militants yoo xam ne ñu ngi mer ba pare ñoo pare jéngu ji doomu aaraam yooyu bés boobu ñu ngi mer because lii dafa mel ni dafa am ñu nangu réew mi ci loxo Adama Barrow te Adama Barrow yëgu ci dara waaye assure nañ ma ne justice minister block na loolu. Why waaye waxuma la sa block Why waaye dañ waroon a def a press release like any other thing ne ñu ngi straighten out this record wan leen ne li ñoo wax ne 28 July 28 June dañoo def ceremony pour change amut du fi am oh yes loolu lañ war a def pour eggali ko do doo ñëw fii di ko toog in fact nit ku xereñ moo ma koo xamal démb ci guddi ku xam affaire loi ku xam affaire gouvernement ku xereñ mooma ku kalifiné mu ne ma saam waruñu em ci ne rek waruñu em ci ne rek um, block nañ ko from the justice minister dañ war a def a press release which is true pour ngeen pour ngeen stop this nonsense because li ñoo wax ne 22nd um, uh, July you know you know it's not true even su ko rorona def sa sudin bi naw bi nga negotiate APRC bi ñepp geey wa nan wa dina am wa bar dafa genuine or not only lele li you know so this is it you know so actually ñu dega ñu wax dega ci dëkk bi dëkk bi fi gaay ko ñu ko yobu xosla si nekk fi human rights center ay ay activist la ñoo xamne ne munuñ dara ci seen aduna nak man lii laay kippoon wax di ko wax mënaluñ dara seen bopp ci dara lañ mënalu seen bopp ci àdduna seen jànga soriwut seen xam-xam guddut xamuñ aduna xamuñ dara dëgër fit rek la ñoo jaay dëkk bi activiste la activiste la jàpp ci ut macaat ñuy dem ñu leen a dogal ay change fii in the name of dañoo ron human rights waaye xamuñ dara munuñ dara nonsense people yi nag we have to get up and face them and stop them before they destroy this nation ci suñ loxo. oh yes you know li ñoo wax du dëgg du yoon waaw wax naa enough foog naa ne tey di Tuesday li ma ko waxee twenty second maa ngi dinaa gërëm nañ leen àndaa suñ xel te xam ne yàqakat yi nekk ci dëkk bi pare yàqa ci réew mi fiñ ko yóbbale nit ñi duñ ko xam te li ma leen a wax rek looya duñ dem ajana mukk li suma padaan wax sérif bés boo eewoo àllaaxi nga ëlbati gis loo yi xam ne yaa nga ca digg safara ñii kenn du ci dugg àjjana waaw dinañ tëj lu dinañ pare nañ fii tëj lu Yaya nañ fii tëj lu ñoom Sam Sarr sax tëj nañ tëj lu ñoom in fact dama doon wax eh, kii sax suma suma waa ji eh, Ibou ma ne ko you are lucky Ibou Diallo su nekkutoon tey American citizen génnu dëkk bi toppatoo àddunaam toog ci freedom ak justice ma ne ko ni ko noonu nga nekkoon fii mel ni Yankuba Touré ni ko noonu Yankuba Touré sax ma nekk a maayal mu ngi naan déedéet man sax bu leen wooree ci suma affaire man Ibou Diallo laa gën a yërëm noonu lañ la doon yaxa yaxa boobu lañ doon nar nar ci sa kaw because dinañ wax ne yow yow dégg naa ne sax saasaay bu mel ni maa di jobaate mus naa binda ne dañ la war a extradite yow yaa rey euh, euh, Koro Ceesay ni ko noonu yow dinañ la jàpp ne yaa not only ne yaa rey Koro Ceesay yow yaa jàpp sacca 3 millions. dinañ la bugal bugal te xam nga ne Batambi du doon spare Essa Fall du la spare kenn du la spare ñoom ñëpp syndicate of these nonsense lawyers yep, nobody will spare you would have rotted in jail im loolu mang la ko wax yes because dañ la jaay doole lañ fee def dëgër fi di jaay doole nit ñi as if ne ñoom ñoo moom réew mi loolu lañ fi nekkee waaye yàlla leen gën dinañ ko ñoom ñëpp dinañ rus ba ci suuf because wéeruñ ko ci dara luy dëgg waaw loolu daal moom soo ko dugalee ci sa boppa bi mu wér kàng because loolu lañ dëkk bi xam dëkk bi daal moom jaayante door rek ale fa amatul lii soldaari yi fetel lañ dee jël ñii ay loobi la ñuy use di ñu nax di fen di tappale di ju jaay dëgër fit te lii dafa stop xaw ma kañ la de waaye dafa stop dafa stop parce que nit ñi dinañ ci sonna puusante ca maraaj ma lay am nit ñi dinañ ci sonn di fen di fen di fen di di fi bara rey nit sax ne fourteen July fuñ jaar dina tëj Yankuba Touré te ñu évidence yëpp dafa ne Yankuba Touré defut lañ ko tiñaal TRRC la demoon TRRC du pour dara affaire yi na nga nit o anything ngeen di ngeen ko tëj rek ñëpp toog di ko xool naan nii la war a amee the ay lawyer you burn judges you burn prosecutors you bon ne nii dañ accept as it is no this is wrong sëriñ this is wrong kaleen mu bàyyi yu bon let's run a better country a clean decent country So my new aman respectante am cër ci ñi you know daan ngeen ne da ngeen i am criminal si ne leen nañ leen ñu ronal dëkk yeah it's wrong it's wrong and I will keep on saying it's wrong I have said enough. Tomorrow I will continue. Inshallah, I will continue. You're not going to shut me down. Yes, I am what a buguma ci dem America sir. I can go New York tey su ma newoon mun naa jël suma ticket génn talk toog New York ah dem Maryland for suma boy yi nekk naan ma I could go and do that. Why I'm not going to do that. Feel like toog yéen ci bi di how stupid and nonsensical you people are ak fi ngeen a yóbbu dëkk bi du nit ñi duñ ko nangu every day nag I will come with the same tone the same language and the same attitude screw you